alhamdulilah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi. mbokk téléspectateur Kossy TV mbokki internet yi si biir réew mi ak si bitim réew ñu nekk si internet bi bu baax ñu leen di nuyu. tey ñu ngi fii ci kër Abdoulaye Bayero ñu gën koo xam ci këru gan ci woote bi nga xamante ne jamiyatu ansaaru diin woote woon nañ ko euh, action sociale ak femme féminine bi nga xamante ne ñu ngi lëkkaloo ci njiital Serigne Aliou Cissé Niang ak Seyda Moussa Koro ak Seyda moy ay euh, femme de la fayda bi nekk si Jumatal Ansaaruddin ngir euh, xidma ak liggey gi nga xamanteni waxtu wu nekk res leen leen di xaar kon tay ji ni ñu ngi fi ci buntu keur Abdoulaye bayor ñu gën ko xam ci kadu gan xamna duñ sori si wax ji dañuy dugg ci biir su ko defé lenn ci euh, ndimbal yi nga xamanteni mi ngi am ci biir ñu mën ko andil aduna way ñu mën ko andil mbokk téléspectateur yi nga xam ñu ngi bàyyi xel ci TV kon ñu egg ci biir incha allahu rabbi alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala sayidina Muhammad وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أنا بين سنت يالله جلي شيء أنا أنت صلى الله عليه وسلم يجي دفتر وصل كيسنا سانغ بوتير دبي شيخ الإسلام على إبراهيم نيس دي زيارة سنة خليفة بوتير دبي شيخ محمد ماهي إبراهيم نيس خادم أمتي دي زيارة يتمين إمام الألفايدة تجاني وعي دي نيو أسيب بريزنا أنصار الدين انترناسيونال شيخ محمد لامين إبراهيم نيس أك Cher Mohamedou Mahi Aline Cissé le porte-parole de la Faida. ñu ngi ñu ngi ñu ngi nuyu président Ansarul Din département Kaolack monsieur euh, euh, Serigne Cissé Niang ñu ngi koy nuyu ak département Ansarul Din yëpp waaye di gërëm di santé yi tamit commission sociale qui s'est taxawaay ak seen liggéey bu di nuyu waa Kaolack yëpp itamit ci seen uy si waaye di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale si muy suñuy partenaire taxawuma assistant ànd ak euh, sunu doom euh, Awa Mbow ak euh, Ibrahima Aydara Ndiaye ak le docteur Pedro ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm itam le district sanitaire ci taxawaayam bu rafet ah, wax dëgg yàlla li ko li ko fi état bi taajee mu ngi koy defar ba mu rafet ndax ñun kat biñ ñu waxee ne ñun chaque année dañ daan organiser lii waaye nag biñ ñu waxee ne dañuy indi ay dons de médicaments may si ko population bi boole ci ay consultation gratuite en neurologie dañ dem rek ma ne loolu romb na suñuy compétence dem seeti ko waxtaan ak moom mu bàyyi itteem yépp ci ndigalu préfet ci àndoo ak action sociale monsieur Ndiaye ñoom ñépp ñu taxaw Euh, def def liggéey bu rafet bi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ziyaare ñëpp itamit tamit tax euh, ñaari at yi yëpp amul itam euh, dafa fekk Covid bi dugg ku ne gis na dëkk bi yëpp dafa taxawoon waaye ñu ngi sant yàlla bi nga xam ne tey Covid bi jeex na ndax gis nga nit ñaa ngi toog takkuñu masque te Amérique laa jóge le mars bi fa la ma fekk. gisuma seen ken tak masque ce n'est même plus exigé même à l'aéroport sax euh, test Covid euh, euh yëpp euh, imposé tuñ ko ken même carnet de vaccination yi imposé tuñ ko ñu xamné rek yalla nga def jamm ñaan ya nga nangu yalla nako yalla gëna lawal. waaw mooy li ñu dajale tey muy social social ansaruddin euh dañuy dajalé mbolo mi di len dimbalé di len di len di len di len may garab. di leen di leen seet seen yaram itam ndax euh, ñi nga xam ne ñoo am handicapé euh, moteur di di di di am problème mu neer ñooñu lañ gën a ciblé waaye tey boo ko xoolee ñu bare bare ñëw nañ. recevoir nañu fi am handicapé ñoo xam ne ay muuma lañ am ñoo xam ne ay silmaxa lañ gisuñu am na ñoo xam ne tamit sax feebaru euh, euh, lèpre bi daanu na ci seen kaw ba wër nañ waaye perd nañ ci ay membre am na ci ay militaires yoo xam ne tey perd nañu ñoom tamit membre ci seen seen ngir ngir ngir ngir défendre seen réew euh, bëri nañu daal bëri nañu ñoo xam ne tey même association troisième âge yi ñoom ñëpp ñëw nañu Euh, boole ko ak euh, euh, néew ji doole yu bare ñëw nañu du question nag lu ñuy saraxe ndax li président waxoon du sarax waaye dafa doon yiiw gu yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci dogal ko or dogal ko or dafa dafa dafa bari yiiw moo tax ñuy dàkk loolu di ci dogal ñi nga xam ne ku mën a doon rek boo doon président de la république bu ñu sañoon benn tàndarma dugg ci sa biir ñu ne lii association bi ñoo la ko jox ngir barkeeloo ko alhamdulilah. 787 euh, démb ba tey nag ñu ngi joxe wax dëgg yàlla ba guddi defe naa ne daay daayira étudiant taalibe bàyyi duma leen bàyyi ci gannaaw maa ngi leen di gërëm di leen sant ci seen taxawaay euh, démb ñëw nañu ñoom ñëpp ci guddi ba 2 heures du matin ñu ngi ñu ngi joxe ay kit. waaw ñii ngi laxas di takk ñii ngi topp mbedd mi dugg ci oto yi di yóbbu euh, démb ba tey daal ñu ngi ci di liggéey. waaw di wax rek ne doomu aadama yi ñu ngi ñaan ñu bàyyi xel ñu bàyyi xel ci ci population bi di leen nemmeeku di euh, wax ne rek euh, dimbalante dafa baax ci àndoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax laa ma yakmulu lil mar'il imaanu hatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi fu ma waxee rek danaa ko wax mu ne kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul dafa yéene moromam lim yéene boppam kon ñu ngi ñaan kenn ku nekk di bàyyi xel ci sa morom di sóoraale yi tamit suñuy dëkkandoor yonente ko wax sallallahu alayhi wa mu ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fala yuzi jaarawo képp ku gëm ne yàlla am na te yomal xiyaam dekki dina am mu ne di moytu àqi dëkkandoor ñuy dimbalante ñam boo togg sax mu xeeñ sa dëkkandoor te mosaloo ko ci sax lislaam daf la ko tere rawatina nag ci jamono ji ñu toll ñu gën a rafetante gën a saafuwante ci suñu biir gën a defar jikko yi waaye gën a baaluwante ak ndax weeru baaluwante àq lañ toll. waaw may wax rek ne ñun taalibe bàyyi ñun Baye desalatuñu dara luñ bëggoon yàlla jox nañu yàlla ndax bu la nit ki ñaanee mbubb boo ko mayee dana xotteeku bu la ñaanee kër sax dana ràpp danga xëy suba mu bëgg koo penturaat waaye ki la jox yàlla bàyyi lotu la dara. kon lan mo la déssé yow djébal ko sa bop xam nga euh euh, euh euh Cheikhna Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Tamassine Cheikh Ahmed Tidiane dafa né bëss rek euh waxtu nangu ñaan jotna euh na ñëpp ñaan seen aajo ku ne di ñaan lu ñaan lu ne mom Aliou Tamassine ñaan wërseuk biñu paré ñi mu dëndalon ay mbokk talibam diko ko diko ko naan ko yow nit ñi di ñaan lii ñu ni dend ak cheikh bi kii sëriñ bi ne leen laaj leen ko lu tax mu wax loolu mu ne waaw dama xam ne ba keroog bu ma jëlee tarixa bi rek li ma namoon ci ay wilaayatoog ay maqaamaak ay martabaak ay loolu yëpp jot naa ko ba noppi lenn rek moo ma dese wërsëg bu ma xidmaalee sama sëriñ te buntu xidma dafa ubbeeku eh, démb maa ngi toog ak benn mbokki taalibe muy waxtaan ci xidma ba ne tey doy na exemple rek doy na exemple ñu jël exemple xitma ci Cheikh Alioune Cissé mi nga xam ne mooy bàyyi bi tey lu mu am tey ci xitma la ko jëlee kon te loolu moo topp ay doomam ak i te ngir xitmaal bàyyi kon ñu ni tamit ay taalibe lañ nañ def suñu bopp taalibe te xitmaal suñu sëriñ dégg naa benn mag mu baax Cheikh Ould Seydi mu ne 10 000 am rek mu ne nga xam 1000 francs bi mu ne mu ne bàyyee ko moom soo ko ko joxee moo ko moom soo ko ko joxul xamal ne moo ko moom kon nañu góorgóorlu takkoo nekk benn dimbale suñu bopp mooy dimbale pays bi nga xam ne moo ñu defar ba ñu am li ñu am tey àgg fi ñu àgg tey. Ah, asalaamaaleykum. Ah, soxna Maguette Sarr di soxna ci Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass mu fi jógee ko ah, ñun nag duñ def lu may ñaan rek ndax mënuñoo wax la première fois may doog di wax ci lu demee nii ñu ngi ñaanal Seyda mi nga xam ne dafa bëgg pay bi yàlla defal ko lépp lum bëgg ci àddina bi jotal càkkutéefam ñun nag ñu ngi kontaan ci lii ndax ci lañ ñu yar ndax père Cheikh Islam bi ku ci yaroo xam ne ci lii lañ yaru ñu ngi sant yàlla bu baax di am kontaante di ñaanal ñu ko fi indi ak ñu ko fi def yàlla jotal seen mboolem càkkutéef ci barke alxuraan ci barke baay ñu ngi sant bu baax a baax a baax ñu ngi gërëm wax dëgg yàlla mënuñoo wax daal ñu ngi sant ñu ngi kontaan Seyda jërëjëf <laughs> macha allah macha allah li Adja def bu ko ñëpp doon def day baax day gën a baax sax macha allah macha allah alhamdulilah rabbil alamin yàlla ñu yàlla dimbaleel boppam te jàppale ñu yokkuñu teraanga yokk ñu ci lu baay bi bu ñu ci kenn ëppale lépp lu nit man ren yàlla ko menn déwén ci barke alquran ci barke baay ak baayam kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax a baax ñi indi lii itam yal na leen yàlla yokk yéen ñi itam yal na yàlla yokk seen garaat yokk seen liggéey barkeel leen barkeel njaboot président Aïdara itam ñu ngi koy ndokkel bu baax a baax a baax lii mu def macha allah daal macha allah mënu maa wax. taani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu bépp jullit bu fi toog ak bépp tarixa bu fi nekk maa ngi nuyu ñëpp di leen di sant di yeesal suma nuyoo ci suñu sëriñ yu màgg yu tedd yi di leen di jox seen wàccuwaay bàyyiwuma kenn nag di leen di nuyu di leen di sant di leen di gërëm man maay Adja Anta Sey Thiam présidente commission féminine. département Kaolack bu Ansar Dine sama secrétaire nga ne la toog kii Ndeye Sène sama adjointe yaayam dafa xaw a jagadi moo tax ñëwut waaye bu ñëwoon tey moom mooy toog fii ci place bi wax ñoom ñu may jàppale ci sama liggéey jàppale ma ci jàppale bu rafet a rafet maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu surtout femme de la fayda bi nga xam ne fa laa bokk ñuy nekk ci entrepreneuriat bi lu ma am tey yàlla ak ñoom la ndax foofu laa jóge ba ñu fal ma lii ma nekk bon nag ñooñu duma leen desal ginnaaw ñu ngi si biti toog dama bëggoon sax ñu fekkee lii ndax andi nañ seen don ak seen participation moo taxoon ma ne duma wax te ñoom tooguñu ndax maa fa gën a mujjee ñëw far yàlla may ma pal bii bon nag lépp lu ma fa am rek gërëm naa leen sant naa leen ndax ci ñoom la ñu ngi may jàppale bu baax di gërëm koo xam ne nag kenn la ci man muy président Cissé kooku fan wu gudd ak wér laa koy ñaanal liggéeyam bi mu oyof toll ci moom yàlla may ko wér ak kàttan ak fan wu gudd loolu rekk laa koy ñaanal di ñaanal yaa Zeyda mi yori social bi ni ñu ko defee ren yal nañ ko defee ay at yu baree bari ñun ñi fi toog yal nañ ko fekkee waat kenn bañ a manqué ci ñun yàlla may ñu fan wu gudd bu ànd ak wér ak mujj gu rafet yàlla nangul ñu suñu koor nangul ñu suñu jaamu yàlla lépp lu luñ ci def lu mu tuuti tuuti yal nañu ko yàlla nangul dimbale miskin dafa baax dimbale ku dun miskin sax dafa baax ndax yàlla loolu la santaane soo amee ñaar dërëm joxal nit ki benn boo amee 15 daggal soo amee ñaar dërëm joxal nit ki benn jël benn soo amee 15 xaaj ko ci diggante bi loolu mooy social te ñun ci loolu lañu suñu sëriñ tàggat te ci lañu yar bon nag ku defut social ci ñun nga xam ne yow wàcc nga yoon bi bon nag social rek a ñu war di dimbale doom aadama yi bu ñu seet ku ñàkk bu ñu seet ku am bu ñu seet ku amut loolu moo ñu war ndax bàyyi toolam bi yaatu na te ñëpp a ko bokk bàyyiwu ci kenn kenn la bàyyiwut bon nag liggéeyal bàyyi rek ay dëgg ku ko liggéey rek rek fayu ku ko liggéeyalut it di nga fayu de waaye nag doo am lu la neex bon nag nañ santaat yàlla ba mu bari ba nga xamee ne dañoo jokk ci buumam gi man sama papa moo daan wax ne El Hadj ci am Gaynde mu ne man dama sant yàlla sant yónnent bi sant cheikh islaam islam sant sama ñaari waajur ndax man li ma am ci doom yëpp ñëpp benn banqaas bi la ñu téye muy kër baay sama doom yëpp demuñu beneen tarixa lu du tarixa boobu bon nag man tey su ma dajewu toog nag cheikh islaam kon man duma am sëriñ kon nag ñun dañuy sant yàlla bum ba mu gën a bari cheikh ibrahim sant suñu baay bi muy cheikh ibrahim Niass ndax lu nekk ci ñun rek moo ko def lu ñu am moo ko moo ñu ko jox di ñu tàggat ci lu ne bon nag nañu ànd doon benn ñi ñëpp ñu ngi nii femme de la fayda ngi nii mooy li ma wax rek lu ma am rek ñoom la lu ma am ñoom la sama yaay yu baax lañ jàppale nañu ma iir nañu ma di nuyu nag suñu président bi nga présidente bi nga xam ne moo yore entrepreneuriat muy maire Adja la Fall kooku kenn du ko desal gannaaw ndax lu ñëw rek ñoo ciy jël paie daaw ba ñu ko organiser suñu bureau la ñu fa defit ñëpp gis nañu ko bon nag ñu ngi ñaan yàlla kóllëre gi nga xam ne bàyyi moo ñu takkee yal nañu ko takkee ba ilaa yow mi diin même bu ñu ko fekkee sax ñun ñu dañuy àndaat foofu bon nag gëm rek a takku di ñaanal sama sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim ñes dal na yàlla yokku leeram yàlla xaree ko ci àjjana firdaws si gën a kawe ndax lu ma am rek yàlla ak moom la lu nekk ci man yàlla ak moom la moom ba may jox wér di salaati faatiha sama doom trois ans la am te léegi mu ngi am 42 ans di jàngale nga xam ne man ba may jël werd bi di tarbiya du tey bon nag ñun sant nañ yàlla sant yónnent bi di sant Adja Zeyda nit ku baax nit ku oyof nit ku yaatu man de wax dëgg yàlla nii la ma def te bu ko neexoon duma ko def boo demee këram nii boobu ba léegi maag moom fu mu teg tànkam rek daf may naan bu ma gisul sax daf may oo téléphone xam nga loolu ku mu doyuti dara du la doy si àddina maay nekk ak moom 10 heures ba 23 heures ma ñibbi sama kër su ma fa gisoon leneen nit du ma fa toog démb fa laa nekk 10 heures ba 8 ci suba laa ñibbi xam nga loolu nit ku la yaatal rek mooy moo moo la mun a teg loolu waaye ku dem këram bu la yaatalu da ngay xat waaye ñu ne ñu ngi koy gërëm di ko sant gis nañ sociale bi mu dem di gërëm étudiants yi biig ñu nag ñoo ma nekk ba 4 heures du matin ñun dañu sonn ci takk tàndarma ñoom ñoo ñëw yeggali yëpp takk paquete konteel ñu yëpp bon nag ñoom ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla saxal ci teraanga li ñuy woo li ñuy wut ñoo ko xam ci seen jàng bi yal na leen ko yàlla may yal na leen yàlla may seen licence yi may leen seen doctorat yi may leen lépp di gërëm sekk district district bi kaas naag nit ku baax nit ku oyof ndax man sekk xam naa ko te gisuma ko ndax sama doom dafa nekk di fa liggéey mu yor ko yor bu baax awa siise bon na kooku duma wax mukk te duma ko tudd di gërëm nag ñii fi taxaw ñëpp télévision yi ñu wër ak ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen di sant yéen kenn amul seen fay yéen fu ñu tourné rek ñu ngeeg yéen lu mu métteeg bu ñu amee ñaari nit ak benn nit ñett toujours yéen a ngi ci suñ kanam di ñu accompagner bon na yéen dañ leen di ñaanal seen liggéey bi yal na leen ci yàlla saxal yàlla yokk ba ngeen yëg ne yokk ngeen ngeen toog ba am lu kawe seen njortu képp ku nekk ci saal bi rek ak ñi ci biti handicapé yeeg ñëpp ñu ngi leen di ñaanal wér wér bi nga xam ne yàlla moo ko am te di ko may yal na leen ko yàlla may yal na leen yàlla kàttanal seen chaise yi ñuy toog yal nañu toog ba jóge ci buñ ci mënut te jóge it yàlla kàttanal leen dooleel leen yokku leen bañ yëg na yokku nañ guddal seen fan barkel yal na yàlla barkel njaboot gi ay waay gi ndax social bi ku ko gis xam ne bàyyi rek a wóor bàyyi mooy la solution bon nag ne ñu àndoo ñun ànd rek la ñu war a def leneen lu ñu def rek nekkuñu ci yoon dañu war a àndoo taalibe Baay dafa war a àndoo ñuy dimbalante di béy waar wi di béy tool bi ndax loolu la ñu sant man dama kontaan ba xawma lu may wax suma président nag duma ko desal ginnaaw yaa maire laa la duma ko desal gannaaw Zeyda duma ko desal gannaaw sant naa gërëm naa suñ membre yaa ngi nii taxaw ñoy def fam de la fayda ñoy defar céréales yeek yeb ñu ngi ni mag ñu bax mag ñu yiw mag ñoo xamne bo tege sa tank fu dut foofu sax dañ lay naan teggi ko defal ni bon nak ñoomi it kenn mënu leena a motax ba ñuy wax ma nañu xaar ba ñu ñew ñu doog wax bon nak sant nañ nañ yal nañ ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alamin assalamu alamina asalaamaaleykum Zeyda Moussoukoro ñu ngi lay nuyu ci turu fam de la fayda ci njiital suñu présidente Adja la Fall moo ñëwoon dafa am empêchement moo tax mënut te ñëw man la Fat Thiam maa yoroon sociale bi ci femme de la fayda léegi dañoo ñëw ak suñu ndimbal suñu eena macha allah macha allah di rafetlu li nga def macha allah di ñaan yàlla yal na ko yàlla saxal te barkeel ko te jëmale ko kanam ndax ñun taalibe Baay lii rek lañ am lii rek lañ am fi lañu suñu sëriñ tegoon fi la ñuy teg suñu tànk bu soobee yàlla. yalla na yàlla dooleel te kàttanal ba lepp luñ ci bëgg yalla mañ ci lu koy suñu jot tam ànd ak wér gudd fan yaara bi indi nañ 56000 six participation di ñaan yalla yalla defal lepp ta barkel ko yaara bi ñu tey waat ko deewon yu bare bare and ak wër and ak tal ci barke baay yaara bi ñoy ngi gërëm sant assalamu alaykum wa rahmatullah alhamdulilah jere ngeen jëf ya Seyda ñu ngi leen di gërëm di leen sant Digital jiital ci mu nuyo bi ak ngërmande gi Adja la fal mi nga xamne ne mo len yebal mm, soxna Ami sen secrétaire général ñew na fi sànq moom euh, di wax ne yeena ngi ci yoon yeena ngi ñëw ñu ngi len di gërëm di len sante ci sen téway ak sen dimbal yi nga xamne indi ngeen ko tay buñ ko xayma woon tey sukkar su bare la waye itamit tandarma ju bare la yal ñu len yalla fayal euh, nañ ko ren yalla nañ ko at yu bari rafet pekke fas yéene rek àndoo liggéey liggéey te yàlla tax yal nañu yàlla doole jàppale li li li ñuy wax rek euh, ne euh, teen euh, teen asamaan jarul xëccoo ndax ku teen rek da nga gis te bàyyi ndawale guddi la kenn ku nekk rek da ngay foog ne man la fi nekkal moo tax nañu góorgóorlu rek àndoo nekk benn toujours nag man damay wax sama philosophie ma ne un mètre bu nit mun a jonkoon jaamu fa yàlla ba dee fekk ko fa yomb na kon nañu góorgóorlu kenn ku ne fa nga nekk rek nga béy sa wàll ci waar wi liggéeyal la ci saroon tànk jëm ca kanam ñaan yàlla rek mu gën a jëmale mbir yi kanam ñu ngi leen di gërëm di leen sant kontaan nañu jox ngeen yàlla yàlla nangu na te dinañ ko jotalal ñi ko war a jot jërë ngeen jëf kontaan nañ alhamdulilah. jërëjëf mbokku téléspectateur Kossy TV comme niñ ko waxee si biir rek. Seyda Moussoukoro mbay jël na ay eh, kaddu joxe ko waaye an ansaaru diin gi nga xamante ne Mawlana Cheikh Ibrahim moo ko taxawaloon ngir mu nekk dimbalante si jaam yàlla yi Cheikh Ibrahima Kébé tey ñu fekk la fii nii si këru gan eh, ñu fekk tey taxawaay bu am solo bi nga xamante ne te handicapé yi kontaan nañ te bëgg nañ lool ban kaddu nga am tey pour joxe ko rek. salaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñu ngi ñëpp di sant ñëpp di rafetlu di gërëm waa bu baax man la Khalil représenté euh, fédération des personnes vivant avec handicap ñu oolu woon si li nga xam ne ordre bi ñu koy organisé di benn ndimbal ak consultation boo xam ne dañ koy def ci askan wi loolu euh, ci nañ dajale du ko rafetlu lool di initiative bu baax a baax a baax parce que handicapé yi euh, ki wax ne consultation bi damuy ci affaire yi neer bëri na dafay sonal handicapé yi ñu oowoon ñu suñu nag wax dëgg yàlla ñu ñëw mu représenté handicapé ci fédération bi yëpp daal loolu moo doon suñuy tànk di rafetlu bu baax euh, ba di di wax rek euh, ak euh, handicapé ñu ngi taal wax état ñëpp ñu jàppale mboolem handicapé parce que handicapé dafa métti dañuy am ay problème yo xamni dafa bëri trop surtout état Sénégal mu gëna a xel handicapé yi seen carte d'égalité des chances loi d'orientation bi té mu japp ci japp ci aide ay tay di am ay handicapé yo xamni ñi ngi toog fii même sen pousse dañu am ay problème mobilité ay problème pousse pousse soxla neen ku leen jappalé vraiment intérêt insérer leen daal ba nga xamni handicap bi dañu am ay financement mëna liggéey mëna démal sen bop lo da daal rafet na waaw El man maa jiite association handicap solidarité mais dama bokk tamit ci fédération communale bi nekk ci membre boo xam ne ci laay yëngatu bokk ci fédération départementale. waaw waaw comme euh, dañuy comme dañuy yëngatu tamit ci wàll euh, social di dox ci loo xam ne dafay jëf parce que euh, dara dañoo juddoo ci benn kër Zeyda yaa ne na ci am yar ñu si jaamu soxla askan wi. ci loolu nag ci lañ moo ñu dugal ci ak fédération des associations des handicaps moo ñu yëngatuloo tamit ci wàllu hôpital yi ngeen di dégg yëpp ci la ñoom parce que daf ñoo ne jaamu leen soxla askan wi ñu gëm ne lépp loo xam ne day jëriñ askan wi rek lépp lay jëriñ askan wi rek ñun ci loolu lañ war a xëy ci lañ war a gont tey moo ñu indi fii dañoo oo ay handicap yi ñëw waroon na dem bàyyi leen dañoo war a toog ñoom ñëpp soutenir leen ba ku nekk la la tax a jóg nga jàpp ko ba pare ñu doog a dem dañoo bàyyi suñu liggéey ngir loolu ci loolu daal la ñuy yëngatu di wa o oh, ah, ah, Sénégal kii autorité yëpp ñu def ni Zeyna Moussa Koro Mbaye def waa Ansaaru di leen def dimbale handicapé parce que yalwaan rek dowut seen métier bëgguñ yalwaan gi waaye bëgg neen loo xam ne dañ mën a demal seen bopp te nit ñoo leen mën a jàppale ba mën a demal seen bopp parce que soo ne baal dara te amoon tegoo ci loxoom dara du ko def ñu yalwaan neexul leen mais suñ sañoon am luñ jàpp ba mën a demal seen bopp te handicapé yoon gërëm bu baax Zeyna Moussa Koro Mbaye ci initiative bii ku ko xam-xam suda gis naa sax ronkañam wad parce que handicap boobu mam fat mako fi indi waaye da ko xor rek après ronkañam wad kon nga xam ne ku am yermande la ci askanam ku am yermande ci nit ñi la kon ni koy ni koy gëna ñaanal yalla di ñaanal wa ansaaru bi suñu bëgg ag yalla agale len leen fa du lu tamen vraiment seen taxaway yoy euh, Moussa yene ngi taxaw askan bu baax yene ngi jàllale information yi soxla naa handicapé daal soxla na ndimbal na ku len nimbal bu baax a baax soxla ne ndimbal ay matériel ak pousse-pousse ak beekee ku ko am mën nga ñu tey jàppale ñi fexe handicapé am ko waaw ñu ngi koy jaarale ci Kossy TV ko jotale pour askan yëpp ko bëgg neen tamit ay financement état jàppale handicapé ñu am financement ak ay formation pour mën a amal seen bopp tàllal loxo bëggul ko dawul lu ñu war lu leen gënal mais suñu leen jàppale dañ ko bàyyi wala dañ am leneen lu ko gën loolu daal la woon. jërë ngeen jëf. Alaaji Ibrahima Kébé kooku mooy ki nga xamante ne ni bokk na si njiital handicapé yi am lu rëy lu mu si yor loo xamante ne mu ngi leen ci dimbale dañ leen ci taxawu. kon mbokki internet yi mbokki téléspectateurs yi Kossy TV si biir réew mi ak ci bitim réew li mooy taxawaayu jëmeetu Ansaarud-Din si njiital eh, Serigne Aliou Cissé Niang ak ki nga xamante moo nekk eh, femme sociale mu ñu ko wax maanaam. seda euh, Seyda Moussoukoro mbay ak Seyda Lalla Fall di leen ñaanal yàlla bu baax a baax taw feex yàlla defal leen jàmm si liggéey bi am solo bi nga xamante ne yéen a ngi ko def fii ci euh, kër Abdoulaye Bayero ñu gën koo xam ci euh, këru gan sant nañ leen gërëm nañ leen joxante ak yéen di daje incha allahu rabbi si yeneen jotaay yu mel nii wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu des leen di ànd ak programme Kossy TV Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak liggéey fay du baay bi si ji barahama Kossy am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay bi si ji barahama ñu leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla